asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu mbokki majmua bi ñëw leen di nuyu di leen ziyaara di leen bal xaq di leen xaq di sàkku ci nitam ngeen bal nu xaq bu baax a baax mu mel ni <clears throat> dañoo dil siwaat ak sayidul xaaji malik si radiallahu taala anhu fi ñu yemoon ak moom keroog ci ci faakihatu tullaab bi tolloon ci sart yi yaakaar naa keroog mi ngi tolloon ak ñun ci ki nga xam ne day yeexe wirdo wi ba waxtoon paase te amul benn ngant ci ngant yu sharia tëral ne yii mooy ngant waaye bañ ko aj ci seetaan ay championnat ay dem xew ma ah ay dem làmbu ak xeet yi nu demee nee na kooku baaxul day dog sa digganteeg tarixa bi kadaka tasadduru ila i'taai bi gayri iznin saxa fi l i'taai nee na na ci li nga xam ne day waral rekki ngëm yàlla dogal la ci tarixa bi ba tey mooy nga tàmbali di joxe wirdo yi te amuloo ndigal ci joxe ko sa bàyyee fi nekkoon di sëriñ taalibe yi ñëw ci yow yeeslu ngay joxe te amagoo ijaasa ku ko def ndok nga a ah, léeg nag moom tabaarakallah la yàlla jublu si la rek tax ngay maye ndi yëf yi ci ndigal yaa ngi alku yaa ngi ah, alku di leen moo tax mu ne kadaa naka noonu atasadduru ak gongeku ilaa iata i jëm ci maye ndigal ci wir doy be gayri istin ci lu dul ndigal mooy sax xa ba wér na fil insa ci joxe ga dañ koy tere yooyu da waral deegu ñaaw de te bala ngay dee yàlla rekki sa ngëm li annahu min al umuri l jaliba mawtawir in xakkan bi suy l li annahu naka loolu min umuri bokk na ci mbir yi aji bijji mooy ñoddi rek mawtam ri in deewu as cam mooy deewu nit ki xàkkan ci dëgg dëgg dëgg yóbbee bi suy laak ba ci mujj gu ñaaw kon du joxe wirdo wi te amuloo ci ndigal ak doyadal gaag gël bàyyi géeg yéex a géeg yëpp day dugg foofu nee na bokk na ci waral mujj gu ñaaw daawal wilayati kaza diaau mashiqatin walil wara al ilaau nee na bokk na ci waral mujj gu ñaaw mooy di woote wilaaya wilaaya bu nekkee ci yow sax boo ko wootee foog yàlla teg la ci nattu waxantuma laa bu nekkulee ci yow déegu ñaaw rek ak rekk ku ngëm yàlla ak di woote ne sëriñ nga te àggugoo ci martabay sëriñ ndax iddi àggoo ko day wane ne liggéey woote du dëgg ak lor bi yi di leen méttital kooku itam foo toll bala nga dee fopp yàlla rikki sa ngëm yàlla waaw yore leen xàq yu dul jeex di leen lor foo mën di toll kooku kenn ku ne war na kaa mën a moytu ndiku doo ndax ñaare doo dee yàlla ngëm yàlla kat daawal wilaayati woote wilaaya lu ne nga woote ko ne moom nga te dara du ci dëgg kazaanaka nuna iddiaawu masiqatin di woote ak sëriñ sëriñ ju kooku it baaxul wal ilaaw ak métital lil waraa ñel mbindeef fa tool di leen teg ay jafe-jafe ki métita ki naqar kooku kenn ku ne war na kaa moytandiku bokk na ci sarti tariqa yi wa kullu man li sayqihi yantasib kaana fal ixtiraam minhu yajib képp koo xam ne dafay aajo askanoo ci Cheikh Seydi Ahmad Tidiane bokk ci tariqa bi yow taalibe bi dafa bokk ci sart yi nga respecté ko ormal ko waaw ak lépp lu ci taq rek da nga war respecté ormal wa kullu man ak képp koo xam ne yentasi bu dafa askanoo li cheyti yi ñeel ci cheikh sëriñ ba mooy cheikh sidi ahmad tidiane ak li takk ci moom askanam kaana nekk na fal ixtiraamu oral wormaal googu yeej bu di war minhu ci taalibe ba dafa war ci taalibe bi mu ormaal cheikh ak li askano ci moom yëpp yëpp moo xam askanu maanaa la wala askanu dégg nga xissi la euh, bu mu ci doon rek tabarakallahu war nga kaa mën ormaal nee laa laa siyama alkubaaru min dal mazhabi ahli alxususiyati ahli rutubi même ñi nga xam ne ay kilifa lañu ci tariqa bi nga xam ni ñoo taxawee tariqa bi don mayuñ la wirdo da nga leen a war a jox orma boo leen joxul orma da ngay dagg ci tariqa bi de baaxul de laa siyama ja rawatina alkubaaru ponkali tariqa bi min mazhabi ci bi la mazhab mooy bii tariqa ñi ci nekk ay kilifa di ay fóori fàddaaral nekk ay nit yàlla yu mag a mag da nga leen a war a respecté ñi nga xam ne ahlul xusuus yi ñooy borom jagleel yu mag yi ahlul rutba ñi nga xam ne ñooy borom garaat yu kaw yi yëkkatiku yi donte ñoom mënuñ lu wér waaye ñu ngi bokk ci tarixa wala bokku leen sax fu wa jokk waaye ci tarixa lañu aju rek te bokk wóor na ñoom bokk nañ ci ñi taxaw tarixa bi da nga leen war a ormal kat ne wasaratu taharata almakaani wa sawbi waljismi ala al nee na bokk na ci sart yi ñuy wirdo mu bokk ci sart tarixa mooy dangay am tahaaratul ak tahaaratul xabas ci gàttal mooy fi ngay toog di wirdo na set yére bi ngay sol na set sa yaram it bu ci sobe nekk sa kémtalaaj kàttan moo tax mu ne wasaratu sartal nañu ci wirdo yi tahaaratal makaani laabu barab di ngay toog di wirdo wa sew bi ak yére bi ngay sol na set wal jismi ak sa jëmm na set alal imkaani sa kemtalaay kàttan kadalika illa li safar mustaqbilal qiblati xaalata zikar zikr zikar nee na bokk na ci sart booy wirdo na toog waaye dox jëm ci tool yaag jëm marché jëm ci bitig baag dox jëm ci penc foofu warul tax booy wir dong ko dal di dox de déedéet euh, dox gi boo ko déggee mooy ki nga xam ne dafa nekk koo xam ne day tukki waaw kay kooku moom hmm, ngant la moo tax kazalika naka noonu bokk na ci sarti al julusu toog sooy wirda da ngaa war a toog illa di safar lu nekk ci tukki bu fekkee da ngaa nekk ci tukki nag kooku moom ngay aji jublu penku xaalati zikar ci jamono ba ngay zikar itam xanaa mu fekk rek nga nekk ci tukki waaye boo nekkee ci tukki moom nu oto ba jëm rek mbaa saret ba mbaa giléem gi nu ñu jëm rek nga jëm noona wa jawazu lkalaama li darura mumtaniun bi gayri ma darura Seydul Haaji Malik nee na bokk na ci charte yi dagal wax bu fekkee na ngant dafa am ba mënuloo ñàkk a wax nga wax waaye bu fekkee darura amul tere nañu nga wax soo waxee sa wird dafa yàqu de na wax bi leer waaw luy lore la mbaa yàq yàqu may nañ la ci nga wax benn baat wala ñaari baat waaye bu mu ko ëpp wal ma daganal nañu eh alkalaama addu mooy wax li darura ngir lor guy bëgg a am gis nga ne añ baa ngi ni ñi nga ko teg xar maa ngi ñëw di ko bëgg a nu mu tuddati te yow amuloo occasion boo mën a jugee te nga seen nit mën nga wax dàqal xar mi wala kaay dàq xar mi ak yeneen xeeti lor ak yeneen xeeti lor yoo xam ne wax mënu caa ñàkk nga wax loolu moom xamees na ko waaye mum tani on wax ji aji terewu la bi xayri ma dara su lor amul de su lor amul moom tere nañ na nga wax soo ko waxee wér doo dafa yàqu nga ne ko bu wax mu munulee ñàkk bu munulee ñàkk ñaata baat mu ne bi kilimatin ci benn baat dong lañ la may xar kay dégg-dégg pour ñëw dàq ko aw kilimatin wala ñaari baat eh dàqal xar mi wala dàqal xar mi ma ngoog xaddu daytal nañ lii an seqi naa ñu jëlee ko suñu sëriñ ak tijaat yi kay ko jóg tijaat niama amul morom alxaddu daytal boobu ñu ko daytal wa in mu xaata bu walla mu wala bu aw saykun aw zawjun yu jab maa xaatabu bu na ñii may bëgg a wax nag ñoom sooy wirdo bañu song la ci wax waxal ñoom ak lu mu yàgg yàgg yàgg yàgg du tax wirdo ba yàqu mooy waajur wu fekk doom di wirdo muy waxanteeg doom ji wala mu woo ko téléphone na wuyu wax moom wax moom ba waajur ba pare wala sëriñam ñii ne sëriñ bi ko may tariixa la ñii ne bépp sëriñ bày yuy tariixa bi ñenn ñu ne déedéet bépp sëriñ rek waaye xam naa sëriñ bi la may tariixa moom moo ci gën dëgër ñenn ñee sa soxna itam bu jëkkër dee wax ak moom fekk mu wirdu dafa war wuyu moo tax wayn yekkun ndegam nekk na wax ja almuxaatabu wala almuxaatibu aji waxante ja wala kañuy waxanteeg bil waal di waaju wax ji dafa continuer aw cheykun wala sëriñam mooy waxanteeg moom wax ji day continuer aw zawjun wala borom këram mooy waxanteeg moom wax ji dafa continuer lu mu yàgg-yàgg moo mu ne ñii de yu jab dees na tontu maa xaatabu wala ma waaw maa xaatabu mooy feeg ñu ngi waxanteeg ñoom rek dañu war tontu haadihi lawaati laazimatun lil umum wa man yuraaciha fa fi ridal xakim Cheikhul Xaaj Maalik lii daal mooy ñaar fukki sart yi nga xam ne ak benn nga xam ñëpp dañoo war a sàmmonteeg moom yii ñëpp dañu war a moom ndax sàmmonteeg moom nag tabaarakallaa ci ngay amee ngir maande yàlla de ndax sart yee fi bàyyi moo tax mu ne haali lii daal allawaati mooy sart ya nga xam ne laazimaatun way taqoo lañu lil umumi ñel ñëpp ndax da am sart yoo xam ne duul ni ñëpp ko moo tax waaye yii moom ñëpp war a sàmmonteeg moom wa man yuraa'iha képp ku sàmmonteeg sart yii fa fi ridal xakim nekk na ci ngir maande yàlla mi nga xam ne mooy aji teg mbir fa mu yelloo yaakaar naa taxaw jot na salaamualeykum wa rahmatullah